renversé nañu la lan moo téye combat bi ba tey. waaw combat wax dëgg yàlla nag tagee wu ci man nag bëggu woon sax ku ma laajaat ci ay combat yooyu noonu ndax day mel ni loolu rek moo ma yitteel te man maa ngi nekk pour mbër yëpp wax dëgg yàlla boobu wax nañ ci waxati ci waxati ci waxati li ma ci wax wax naa ko ci promoteur bi jox nañ ko loolu moom xëy na dafa warut a taxaw rek mais leneen tamit bu ñëwee tamit ma jël am benn problème. waaye loolu xanaa nag mooy.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 du lu ñuul rek këriñ la de. waa kay. jili foofu laa ci yem bëgguma si waxaat sax. bëreeg Issa daan ko bëreeg Zos daan ko ñu ne non Seye lan moo tax mënul jël ay moroomam. ñu wax sa diggante Forza mu mel ni dafa am lu fa boleke. mais xam ngeen ne boleke wu si man axlu laam yëpp xam ne boleke wu si man ci moom la boleke li tax mu boleke si moom nag rek moo xam. li nga waxee mooy Forza dala ragal. non du question la ragal sax. non non mënu maa ragal. Forza mënu maa ragal ndax bëri na ba adversaire bu ne. mais combat boobu noonu dama jàpp ne combat bu jaar la mais defu ci làmb lu ma def lu tax ma laaj maag la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 rek kuñ ma suwaa ni ma kii la président bi a ñu bëri ci kàttanu yàlla aw ma problème moo jaaxal Alioune Seye jógee ci victoire bëri jógee ci défaite te nangu ñëw bëri ak Alioune Seye ah moo jaaxal supporter jaaxal ñëpp gars yi xam nga très sedd la lu yomb te lu yomb amu lu yomb da ngay dem jaayi galaas boo maree boo naan ba marul naan oh. ah voilà eh, eh, <laughs>